sudaap gaaw na fa mbay laaj ko gaaya daal di ko mbay ci biir tuwaat mbokk yi Sidi Mouhamadul Mansour ibnu Sëriñ Babacar Si Mouhamadul Mansour ibnu Seydi El Hadji Mouhamadul Mansour ibnu Seydi El Hadji Malick ne mu ngi leen di nuyu baat bi nu yàlla boole baat bi gën a tedd gën a sell te yàlla boole ni ko muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xanaa rek li olof li arab di wax xayrul kalaami maa qalla wa dalla sidi mouhamadul mansour ne xanaa li arab di wax rek xayrul kalaami maa qalla wa dalla kaddu yi ñuy yëkkati sëriñ bi ne kaddu yi ñuy yëkkati ne dañu koy teg ci ñeenti kàddu rek. te kàddu nuyoo lay doon. sëriñ bi ne te ñeenti kàddu yooyu kàddu nuyoo lay doon. ndax bi may dugg ci tànt bi dama fekk sama kilifa. ne ndax bi muy dugg ci tànt bi daf fi fekk kilifa. mu di sëriñ Moustapha Sy Al Amin. muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Amin. ñaanal ko yàlla. sëriñ bi ne ñaanal ko yàlla. yàlla guddal fanam. ne yàlla na yàlla guddal fanam. sëriñ bi ne Sidi Mouhamadul Moustapha mag ñee ko joxañ mag ñee ko ne doxalal ne Sidi Mouhamadul Moustapha mag ñi ñoo ne ko doxalal loolee lépp nag bu amee ci moom sëriñ bi ne loolee yépp nag bu amee ci Sidi Mouhamadul Moustapha melokaanam la ne tabaarakallahu loolee melokaanam la fa tabaarakallahu la adduru yàlla bu ca tabbi bi ne Sidi Mouhamadul Moustapha daal yàlla bu ca ci moom nee yal na ko yàlla sàmm. yal na ko yàlla wéral. nee yal la baayam yore woon. nee la baayam yore woon. ak la mu toogee woon. ak la baayam toogee woon. loolee lépp. nee loolee yépp. yal na ko yàlla ndëxañ ci moom. sëriñ bi ne yal na ko yàlla ndëxañ ci Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Al te wéral ko yàggal ko ci sunu kanam. nee ki ñuy njëkk a nuyu ci jotaay bi rek. sëriñ bi ne ki ñuy njëkk nuyu ci jotaay bi rek. mooy ñu ngi nuyu diine ji. mooy tabaarakallaahu noo ngi nuyu diine ji. ndax inna diina inda al islam. ne sëriñ bi ne inna diina inda al islam. ñu teg ko ci loxol imaam Diop Siis. ne tabaarakallaahu ñu jël na bi teg ko ci loxol imaam Diop Siis. di ko ñaanal yàlla moom itamit. ne di ko ñaanal yàlla moom itamit. yàlla guddal fanam te wéral ay cëram. nee yàlla guddal fanam te wéral ay cëram. fa fa tabaarakallaahu. ku ñu sopp la. nee ku ñu sopp la imam. ñu ni tamit ñu sopp ko lool. ñu ni doxam. sëriñ bi nee doxu imam. ak waxam yëpp. nee ak waxu imam yëpp. mooy lu jullit yi bennoo. mooy lu jullit yi bennoo. nekk ci jàmm. nee nekk ci jàmm. tabaarakallaahu nee fa tabaarakallaahu yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla dëgëral ko bu ñu nuyoo imaam ba pare nee bu ñu nuyoo imaam ba pare ñu ngi nuyu mbokk gi nee ñu ngi nuyu mbokk gi ndax wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama nee wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaam teg ko ci loxol le premier magistrat de la ville. nee ñu teg ko ci loxol le premier magistrat de la ville. mu di imam. nee mu di imam. njiit mu di njiit mu di maire mu di maire muy Momar Siis nee muy xaji Momar Siis nee fa tabaarakallahu yàlla li muy def xam na ko nee yàlla li muy def xam na ko du juum mukk yàlla du juum mukk gis nga yàlla nee gis nga yàlla xolu jaam lay yër sëriñ bi ne yàlla xolu jaam lay yër bu setee nee bu setee yàlla jiital ko yàlla daal di koy jiital bu sellee. nee bu sellee. yàlla jiital yàlla daa di koy jiital. bu ëmbalee jaam yi jàmm. nee bu ëmbalee jaam yi jàmm. yàlla jiital ko yàlla daa di koy jiital. te fa tabaarakallahu. nee fa tabaarakallahu. loolu am na ci meer. nee loolee am na ci meer. Momar Ciss kon maa ngi jël nuyoo mbokk gi yëpp. nee kon maa ngi jël nuyoo mbokk gi yëpp. di ko tox di ko teg ci loxol meer. sëriñ bi ne di ko teg nag ci loxol meer. nga mbokk alalu yàlla la sëriñ bi ne gis nga mbokk alalu yàlla la te kenn ku nekk ci ñun nee te kenn ku nekk ci ñun fi nga bokk boole woo fa sa bopp fi nga bokk boole woo fa sa bopp waaye yàlla la soob mu boole la fa waaye loolee boole googu yàlla la soob mu boole la ca kon loolee alalu yàlla ne kon loolee yàlla kon ñu ngi nuyu mbokk gi sëriñ bi ne kon ñu ngi nuyu mbokk gi buñ ci jógee ne bu ñu ci jógee chef de village. nee ñu nuyu chef de village. nekk ci jotaay bi. nee mi nekk ci jotaay bi. di ko ñaanal yàlla moom i tamit. sëriñ bi nee ñi di ko ñaanal yàlla moom i tamit. ndax fii tey bu ñu fi ñëwoon. nee ndax fii tey bu ñu fi ñëwoon. fekk fi maire. fekk fi maire. fi chef de village. te fekkuñu fi chef de village. kon jotaay bi dana taq dina taq suuf nag. waaye maire. waaye sëriñ bi nee waaye maire. mooy piisu bi. nee mooy piisu biti bi. chef de village. nee chef de village. mooy piisu biir. mooy piisu bi nag. kon ñoom ñaar faaw ñu ànd. kon ñoom ñaar faaw ñu ànd nag. kon ñu ngi nuyu chef de village bu baax. nee kon ñu ngi nuyu chef village bu baax. nuyu nag. sëriñ bi nee ñu nuyu nag. mbooleem turux. mbooleem yi nga xam ne. nee yi nga xam ne. lamb nañu tànt bi. lamb nañu dajoo ci tànt bi. ñun ñu fi toog ñëpp. sëriñ bi ne ñun ñu fi toog yëpp. ay murit. nee du ay murit. waaye du ay tiijaan. waaye ñun ñi toog du ay tiijaan. waaye ñun ñëpp tamit du ay xaadar. waaye ñun ñëpp tamit du ay xaadar. kon kenn ku nekk ci ñun. nee kon kenn ku nekk ci ñun. am na koo defanteel mu baaya. am na koo defanteel mu baaya. am na koo jaayanteel ci wàllu tarixa. nee am na koo jaayanteel ci wàllu tarixa. kon ñu nuyu mbooleem tarixa yi nga xam ne daje nañu fi. kon ñu ngi nuyu mboolem tarixa yi nga xam ne daje nañu fi. fa tabaarakallaahu sëriñ bi nii te fa tabaarakallaahu ku dugg ci tànt bi ne ku dugg ci tànt bi toog rek toog rek di di nga yëg ne fii fii nii ci dëkk bii ne ci dëkk bii ci tund wi ci nekk nañu benn ñëpp nekk nañu benn yàlla na yàlla saxal loolu ne yàlla yàlla saxal loolu bi ko ñeenteel sëriñ bi ne bi ko ñeenteel wëllëre nee ñu ngi nuyu wëllëre wëllëre gi fi indi Serigne Moustapha nee wëllëre gi nga xam ne moo fi indi Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha te dalewul ci moom nee te dalewul ci moom mu nga jaaree ca baayam mu nga jaaree ca baayam waaye dalewul ca moom nee waaye dalewul ca moom mu jógee ca Serigne Babacar nee mu nga jógee ca Cheikh Seydi Aboubacar si yal na yàlla dolli ko leer nee yal na yàlla dolli ko leer te yàlla taas ñu ci barkeem nee te yàlla taas ñu ci barkeem nag تبارك الله كل رغوغو سيد محمد المنصور ني فتبارك الله كل رغوغ نك مونو في اندي تاي لولي مونو في اندي تاي جارالي كو سي الحاج فاي ني لولي نك يالا جارالي كو سي الحاج فاي مودي جربات سي مير مومر سيس ني مودي جربات نك سي مير مومر سيس واخنا ليغي بي سيرين مصطفى توغي سيرين بي ني واخنا ليغي بي شيخ سيد محمد المصطفى توغي سا نييو ريك رافتنا ني سا نييو ريك رافتنا nga dégg ko rafet ma ni tamit ma ñëw. ma ni tamit ma ñëw. dégg ko dégg ko. ñëw teew ñëw teew ci. gën na rafetati ne loolee gën na rafetati. ndax wa kullu xasanin fa lahu axsan. ne ndax wa kullu xasanin fa lahu axsan. lu rafet lu ne am na lu ko gën a rafet. sëriñ bi ne lu rafet lu ne rek am na lu ko gën a rafet. kon fa tabaarakallahu. ne kon fa tabaarakallahu. maire Momar Ciss. ne maire Momar Ciss. ñu ngi kontaan. Seydi Mahamadul Mansour ne ñu ngi kontaan. ñu ngi bég lool. ne ñu ngi bég lool. ci sa bés bii. ne ci sa bés bii. xawma lan moo la ko lo. sëriñ bi ne xawma lan moo la lo bés bi waaye bés yëkkati nga loo xam ne li lu am solo la ca yàlla ne waaye yëkkati nga loo xam ne lu am solo la ca yàlla ndax rawatina ci weer wii nga xam ne moom nga ko yëkkatee sëriñ bi ne te nag rawatina ci weer wii nga xam ne nga ko yëkkatee lii dafay wane ne ne lii dafay wane ne yow sa politique ne yow sa politique politique bu daje la ne sa politique daal politique bu daje la politique gu rassemblement la. sëriñ bi ne politique gu rassemblement la. politique gu kaay leen ñu bennoo la. waaye sa politique it leen ñu bennoo la. mu wóor ma ne jotaay bi sëriñ bi ne mu wóor ko ne jotaay bi ñi fi nekk ñëpp. nee ñi fi nekk ñëpp. ay soppe lañu. ñooñuy nekk fi ay soppe lañu. waaye am na ay bennat ay waaye am na ay bennat yoo xam ne ay opposant leen. waaye loolee yëpp. sëriñ bi nii waaye looloo yëpp. ci benn diir rek la woon. nee ci benn diir rek la woon. loolu jàll na. loole jàll na. waaye yëg nañu ne. waaye yëg nañu ne. ku baax nga sëriñ bi ne yëg nañu ne monsieur le maire ku baax nga. wax naa la léegi ne la. sëriñ bi ne wax na la léegi ne la. Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh. dafa daan wax ne. ne dafa daan wax ne. nit nit. ñaar la ñaar la dañu lay biral ne dañu lay biral wala ñu yellu la wala nag ñu yellu la te fa tabaarakallaahu ne te biral bi ne biral bi ak yellu bi ak yellu bi yëpp yëpp benn la ñaar yëppee benn la fa tabaarakallaahu fee ne fa tabaarakallaahu nga réussir nag sëriñ bi ne lii nga réussir nag wane na wane na sa mérite sa mérite ci nga jiite ci nga jiite gox gox bii nii tabaarakallaahu ay mbokk yu daje. sëriñ bi ne parce que ay mbokk yu daje. bokk benn pas-pas ne bokk benn pas-pas. bokk benn bëggandoo. bokk benn bëggandoo. benn bëgg-bëgg. bokk benn bëgg-bëgg. bokk itamit benn tariqa. ne bokk itamit benn tariqa. nga mën leen dajale nii. nga mën leen dajale nii. fa tabaarakallaahu ne fa tabaarakallaahu. laa aduru. laa aduru. yàlla bu cattaat ne yàlla bu ci cattaat bi. waaye mbokk yi. sëriñ bi ne waaye mbokk yi. lii la yàlla bëgg. lii dong la yàlla bëgg. ñun jullit yi. sëriñ bi ne ñun jullit yi. faaw ñu nekk benn. faaw ñu jéem a nekk benn. bu ñu xoolee ci réew mi ci àdduna bi. ne bu ñu xoolee ci àdduna bi. ñi nga xam ne. sëriñ bi ne bu ñu xoolee ci àdduna bi ñi nga xam ne. ñoom ñoo ko jiite. ñoom ñoo ko jiite. gëmuñu yonent bi. ne ñooñee gëmuñu yonent bi. gëmuñu sax yàlla. waaye ñooñee gëmuñu sax yàlla fa. waaye fexe nañu ba bennoo. waaye ñoom day fexe nañu ba bennoo. ba la ñu bëgg a ba lépp lu ñu bëgg a tëral rek. ñu di ko tëral. ñi di ko tëral. di ko doxal di ko doxal. te du am benn benn coow. te du am nag benn coow. waaw ñun jullit yi. sëriñ bi ne kon nag rekk ñun jullit yi. est-ce que ëpp ñu gënuñu leen ëpp doole ca. est-ce que ne leen a ëpp doole ca yàlla. est-ce que yàlla. est-ce que yàlla. daf ñuy dégg. daf ñuy dégg. te dégluwuñu. te dégluwuñu. yàlla. sëriñ bi ne yàlla. ñëpp lay dégg. yàlla ñëpp lay dégg. waaye dégluwul ñëpp. waaye dégluwul ñëpp. jërëjëf. kon ñun jullit. sëriñ bi ne kon ñun jullit yi. sunu force dëgg dëgg dëgg. nee mu ngi nekk ci lii nii. nee mu ngi nekk ci nii. mooy ñu bennoo. sëriñ bi ne mooy ñu bennoo. kenn ku nekk ci ñun. sëriñ bi ne kenn ku nekk ci ñun. bët bi ngay xool sa moroom. bët bi ngay xool sa moroom. nga yëg ci sa bopp. nga yëg ci sa bopp. ci nee su ko defee. yéenente jàmm ñu yéenente nag jàmm. bokk bëgg bi nee ñu bokk bëgg-bëgg. defar suñu société. nee ñu dem a defar suñu société. ndax société bi. sëriñ bi nee ndax société bi. feebar na nee feebar na de. xool. sëriñ bi nee ku xool. ni jamono méttee. ni jamono méttee. kenn teguñu ko. kenn teguñu ko ñun suñu nee ni jamono méttee ñun ñoo tek suñu bopp. dimbalante. Sidi Mahamadul Mansour ne dimbalante. dafa tumuranke léegi. nee dimbalante dafa tumuranke léegi surtout si ñun jullit yi. dafa sëriñ bi ne dafa tumuranke lool. bu ba. nee bu njëkk ba. kër goo mosaan dugg. kër goo mosaan dugg. daan na am ndabal gan. daan am nag ndabal gan. ndabal gan. nee ndabal gan. néew na ci kër yi. néew na nag ñi koy gis ci kër yi léegi. dimbali sa moroomu jullit. sëriñ bi ne dimbali sa moroomu jullit. te yàlla tax te yàlla rek tax. woowuloo ay caméra woowuloo ay caméra. woowuloo ñu koy jéebaaneel. woowuloo ñu la koy yéebaaneel. nga war ko def rek te yàlla. nga war ko def rek te yàlla rek tax. ci jamono sëriñ bi ne loolee néew na nag léegi ci jamono bi. State l'ASI. fa tabaarakallaahu léegi. sëriñ bi ne fa tabaarakallaahu imaam dee na léegi. mag ña. nee mag ña. ñu jekku woon jamono leen. mag ña ñu jekku woon jamono leen. te wax seen borom. te mag ña lu ñu mosaan wax seen borom. yàlla nangu yàlla da koy nangu def ko. waaye boo seetee. mag ñi fi jóge ñëpp. mag ñi fi jóge ñëpp. bàyyi fi ay milliards. sëriñ bi ne mag ñi fi jógee yépp bàyyi fi nag ay milliards. lu ñu mës a am. nee te ñoom lu ñu mës am. bokk nañ ko ak seeni mbokk. bokk neen ko ak seeni mbokk. waaye léegi nga ne nga. sëriñ bi ne waaye léegi nga ne jullit nga. bi nga fiy jógee. bi nga bàyyi nga fi ay milliards. ñi nettali ne bi nga fiy jógee bàyyi nga fi ay milliards. koo koy dee. sëriñ bi ne koo koy dee. dimbaliwul ay mbokkam. dimbaliwuloon ay mbokkam. kon nañu dimbalante ci sunu sëriñ bi ne kon nañu dimbalante sunu biir. gis nga yàlla. sëriñ Mouhamadul Mansour ne gis nga yàlla. ki fii gën a yàgg. ki fii gën a yàgg. mooy ki am yërmande ci nit ñi. mooy ki ci nit ñi. te mën a dimbali nit ñi te mën a dimbale nag nit ñi. yàlla moo wax ne. nee ndax yàlla moo wax ne. wa amma ma yanfaqu naas. wa amma ma yanfaqu naas. fa yankusu nee fa yankusu fil ard. maa leen bind. yàlla ne man maa leen bind. di leen wërsëgal. di leen wërsëgal. waaye ma ci wërsëgal. waaye man yàlla ku ma ci wërsëgal. ma yëg ne wërsëg bi ma lay jox ma yëg ne man yàlla wërsëg bi ma lay jox. yaa ngi koy jël di ko séddale ci sa biiri mbokk. yaa ngi koy jël nag di ko séddale ci sa biiri wala ci biir jaam yi. wala ci biir jaam ñi nga tene. man yàlla dinaa la fi yàggal. man yàlla dinaa la fi yàggal. tey la dolli sutura. te man yàlla it dinaa la dollee dolli sutura. sëriñ bi ne may nettali rek lenn. jamonoy sunu maam Abdoul Aziz. ne jamono sunu maam Seydi Abdoul maam Dabakh Malick. bu Musaana jógee Dakar. ne bu Musaana jógee Dakar. ñëw Tiwaawan. ñëw Tiwaawan. nit ñi dañuy xam ne. ne nit ñi dañuy xam ne. poosu alaaji Abdou bii. poosu alaaji Abdoul Aziz bii. fees na dell ak xaalis ne fees na dell ak xaalis. bés mu def bés mu jógee Dakar ñëw Tiwaawan. ne bés mu jógee Dakar ñëw Tiwaawan. dugg ci biir kër gi. ne bi mu duggee ci biir kër gi. dugg ci biir néegam. nee mu dugg ci biir néegam. waxtu wi di jot. nee waxtu wi jot. mu summi grand mbubbam. nee mu di waajal. nee di waajal waxtu wi. mu am kenn ci njaboot gi. sëriñ bi ne maam Abdou am kenn ci njaboot gi. bu ma nee njaboot gi nag. nee bu ma nee njaboot gi nag. waxuma ko sant si. nee waxul ko sant si. Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. nee Cheikh El Hadj Aziz. ñëpp la jam jaboote woon. nee maam Abdoul Aziz am ñëpp la jaboote woon. dafa am bés mu toog. ne dafa am bés mu toog. ci biir néegam nee ci biir néegam. Serigne Mbaye Abdou ñëw nuyu si ko. nee Serigne Babacar Sy Abdou ñëw nuyu si ko. waxtaan ak moom. waxtaan ak moom. mu ne ko moo sëriñ mu ne ko moo Serigne. mbaa yëg nga tur bu bees ñu may woowee léegi. Serigne mbaa yëg nga tur bu bees biñ may woowee léegi. Serigne Mbaye Abdou la. nee Serigne Babacar Sy Abdou doomam la. ne ko waaw yëg naa ko de. mu ne ko bàyyi waaw yëg naa ko de. mu ne ko ban tur la. mu ne nga ko yaakaar. mu ne ko Abdou Aziz. mu ne ko Abdou Aziz Abdou ne maam Abdou ne ko déedéet du boobu de. mu ne ko Dabaax Malick mu ne ko Dabaax Malick mu ne ko déedéet maam mu ne ko Serigne Abdou mu woyof mi ne ko Serigne Abdou mu mu ne ko déedéet maam Abdou ne ko déedéet. mu ne ko a papa kon ban tur la mu ne ko a papa kon ban la. mu ne ko Alhaji Abdoul Aziz mu ne ko Alhaji Abdoul Aziz. xalif général de Tidjane mu ne ko Serigne mbaa yëg nga ne. mbaa yëg nga ni. tur bi bi mu ma ganesee. tur bi bi mu ma ganesee. boobee ba léegi. nee muus mu dee Tiwaawan. nee bu ëllëgee. yàlla yàlla. man la koy laaj lay laaj muus moo. mbaaxu Cheikh nee ci mbaaxu Cheikh Al Hadj Abdul Aziz nee mu summi grand boubam. njaboot gi. nee ci njaboot gi. am ku ñëw dugg ci biir néeg bi. am ku ñëw ci biir néeg bi. moom mu dugg ci wanag bi di waaj. nee Seex Alaaji Abdul Asiis ci biir wanag bi di waaj. waaye yëg na ne. nee waaye yëg na ne. am na ko puus buntu néegam. am na ko puus buntu néegam. ba dugg ci biir. nee ba dugg ci biir. buntu uh, douche bi nag. nee buntu douche bi nag. dafa am rideau bu fa am. nee dafa am rideau bu fa am. maam Abdou yéen puus tuuti rideau bi. nee maam Abdou puus tuuti rideau bi. gis waa ji nee mu gis waa ji jël loxoom jël di ko dugal ci poosam nee di ko dugal ci poosam di génne xaalis nee di génne xaalis bi di def ci poosam di def ci poosam di génne xaalis nee di génne xaalis di def ci poosu boppam di def ci poosu boppam moom maam Abdou ci mbaax nee maam Abdoul Aziz Dabakh ci mbaaxam gën a làqatoowaat rido bi gën a làqatoowaat rido bi ne ko diw ne ko diw ba mu ne ba mu ne ko naam mu ne ko bàyyil fi lu ma jox ñeneen ñi mu ne ko bàyyi fi nag lu ma jox ñeneen ñi

nga xam ne ku ñu dajal laaj la lan nga xam ci alaaji nga xam ne képp ku ñu dajal rek laaj la lan nga xam ci alxaaji Abdou Aziz Dabakh mu am ku ñu dajeel ne mu am ku ñu dajeel fekk kookee fekk kookee mbir mi ci moom la tombeel ne mbir mi ci moom la tombeel moom moo nettali ci boppam ne moom waajooju moo nettali ci boppam ne bés ñëw na ne bés ñëw na ma def lii alxaaji ne mu def lii alxaaji Abdou Aziz dégg fenn ne te musuma dégg fenn ci dundam moom maam Abdou moom maam Abdou Aziz fu mu ko nettalee fu mu ko nettalee allahu akbar kabira ci ne waaye léegi yooyu moo tumuranke sëriñ bi ne loolee tumuranke sunu jamono léegi li xew ne léegi li xew boo dee wax boo dee wax yàkkamti wuñu yàkkamti wuñu sa moroomu nawle sa moroomu nawle ni yow di as gor ni yow di yow lu mu gàtt gàtt lu mu gàtt gàtt génne na portable génne na portable portable am di enregistré ne di enregistré li ngay wax ci yàlla ka ne serigne bi ne dafa xew. te yeen yeen koy wax. te yeen yéen ay wax ne dafa xew. kaay len ma kaa ne kay len ma kaa leen. cee ka tass na rew mi. ne ka tass na rew mi. nañu gor gorlu serigne bi ne nañu gorlu mbokk yi. ne mbokk yi. ëllëg. ëllëg. yawmal khiyam yawmal khiyam yalla ëppante na. yalla ëppante na. ñuy ay doomu adama ñuy ay doomu adama bokk ci xeetu Seyduna Muhammad. bokk ci xeetu Seyduna Muhammad. yàlla bind ñu ci leeru Seyduna Muhammad. yàlla bind ñu ci leeru Seyduna Muhammad. wëlbatiku. ne yàlla wëlbatiku. di ñu dugal safara di ñu safara. allahu akbar. cey yàlla. ñun ñii. sëriñ bi ne ñun ñii. murit. ne murit. tiijaan tiijaan. xaadir xaadir. laayeen laayeen. ak fu jullit fu ak fu jullit fu ñun ñooy dugalante safara nee sunu bopp safara Allahu akbar oh, laaj ci naka la ñuy dugalante safara sëriñ bi ne doo leen ko laaj ci naka la ñuy dugalante safara sëriñ bi ne laaj nañ la lu ko maam alaaji Malick moo ñu jàngal ne ne Seex Seydil Haaji Malick moo ñu jàngal ne وإنه وإنه إذ أراد الله إذ أراد الله وإنه إذ أراد sëriñ bi ne kon mbokk yi Malick dafa ne. nee Cheikh Seydil Hadji dafa ne. bi yàlla nammee bind àdduna. bi te àdduna ay nit nag yàlla bi mu ko nammee bind mu war koo bind te ay nit war koo dëkkee. war ay kër. sëriñ bi ne te mu war a ami ay kër. ay nit dëkk ca. ay nit ñooñee war sol mbubu. nee nit ñooñee war sol mbubu. nit ñooñee war a sol dàll. nit ñooñee a yàlla ne maa leen bind. ne yàlla ne maa leen bind. wàcce leen fii. wàcce leen fii. waaye na ma jaamu. waaye na ngeen ma jaamu. waaye bu jaamu ga weesoo. waaye bu jaamu ga li taxarafu. nee li taxarafu. na ngeen duggante. yàlla ne bu jaamu ga weesoo na ngeen duggante. ndax kenn ku nekk ci yéen. sëriñ bi ne ndax kenn ku nekk ci yéen. fi nga matee. fi nga matee. foofu la sa morom matadee. ne foofee la sa morom matadee. te boo seetee adduna. sëriñ bi ne te boo seetee adduna. ñeenti nit rek ñoo fi nekk nee adduna ñeenti nit rek ñoo fi nekk. ku riche. nee ku riche. ak ku pauvre. xas. nee ku lay xas. ak ku lay tagg. ak ku tagg ñii ñeent dong ñoo fi nekk. tabarakallah. waaye mbokk yi. sëriñ bi ne waaye mbokk yi. ñooñee ñëpp. nee ñooñee ñëpp. kenn ku nekk ci ñun. kenn ku nekk ci ñun. na nga koy yemale ci sa bopp. nee nanga ko koy yemale nag ci sa bopp. ku lay nee ku lay xas. bëggal bëgg ko. lay tagg sëriñ bi ne ku lay tagg. yemale ko ki lay xas yemale ko ak ki lay xas. nee ku riche ki. yemale ko ak ku pauvre ki na yemale ak ku pauvre ki. ne ku pauvre ki. yemale ko ku riche ki yemale ko ak ku riche ki. sëriñ bi ne su ko defee rek àdduna daal di neex. ma léegi ne. sëriñ bi ne ma wax léegi ne. ñun ñooy dugalante safara. ñun ñooy dugalante safara. yàlla. nee ndax yàlla. dafa cof ci leeram. nee yàlla dafa cof ci leeram. bind ci sayyiduna Muhammad. bind ci nag sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. gis nga leeru sayyiduna Muhammad. nee gis nga leeru sayyiduna Muhammad googu. ci la ñu bindee micro yi. nee ci la bindee micro yi. ci la ñu bindee électricité. nee ci la ñu bindee électricité. ci lañu bindee photo yi ñu toog. ci la ñu bindee it photo yi ñu toog. ngir tedd ngay jaam ngir tedd ngay jaam waaw kon est-ce que yàlla. waaw kon mais est-ce que yàlla. dana cof ci leeram. dana cof ci leeram. bind ci Sayyiduna Muhammad bind ci Sayyiduna Muhammad. wëlbatiku yàlla wëlbatiku. cof ci leeru Muhammad cof ci leeru Sayyiduna Muhammad. bind ñu ci ñun mais mu bind ñu ci ñun ñi. ba pare ëllëg di ñu dugal safara. ëllëg yowmal xiyaam yàlla jël leer googee di ko dugal safara. ah déedéet ni yàlla du def loolu. te yonent bi daan na wax naan ana minallahi sëriñ bi ne te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ana minallahi man ci yàlla laa jógee ne man ci yàlla laa jóge mu ne ko laaj ñun ne mu mel ni dañu ko laaj ñun nag fa ñu leen jógee mu ne wal muminuun ne yonent bi ne wal muminuun min nii min nii yéen ñi ñëpp ne yéen ñi ñëpp ci sama leer ne ci sama leer man yonent bi lañu leen bindee ci leen lañu bindee moo tax mag ñi bi ñu xamee loolu ne moo tax mag ñi bi ñu xamee loolu yàlla ne yàlla joxañ leen yonent bi joxañ leen sallallahu alaihi wasallam sallam ne roy leen ko ne la roy leen ko nag ci la mag ñëpp ci la mag ñëpp jóg ne fexe pour xam pour xam kan mooy sallallahu kan mooy sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illa ñu jàll ëllëg ne kon ñun fu ñu jàll ëllëg mu ngi dépendre ci yonent bi sallallahu alayhi ne mu ngi dépendre ci yonent sallallahu alayhi wa KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaax yu wóor te leer